وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan mu jubal ñu teg ñu ci siraatal mustaqim moom mi nga xamante ni képp ku mu jubal teg la ci siraatal mustaqim kooku de rëcc na mucc na waaye képp ku mu seetaan ci maandu téem ba nga réerit amul kenn ku la mën a jubalaat yàlla ñu yàlla jubal ñuy seede ni amul kenn ku nar a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te waruñu kaa bokkaale kenn ñuy seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla nañu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal ba ba bis penc di taxaw ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla mbokk yi di wéy ak yéen ci suñu silsila bi ñu nekkoon di wax ci jàkk waxoon lu bari ci li ko wër suñu xutba bi passé ñu doon wax ci salaatul jumaa mooy julli àjjuma bisu àjjuma ci boppam ak la ca nekk ci ay ngëneel waaye suñu xutbay tey bi iznillahi taala ñu ngi ko fas yéene amal ci salaatul jamaa muy jullik mbooloo borom bi subhanahu wa taala mu ñuy dénk ci alxuraan di ñu wax ni ci néegam yii ñuy wax jàkka lañu digal ñu fay tudd turam wi di ko fa sàbbal di ko fa bàkk di ko fi kañ suba ak ngoon nee na ñay taxawee noonu nag rijaalun ay góor dëgg la ñuy doon ñoo xamante ni nopp nañ seeni bakkan ñoo xamante ni laa tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah amul benn activité commerciale wala lenn loo xamante ni mbiru bakkan la lu leen di mën a yóbbu ba ñu faat teew gi ñu war a teew ci néegu yàlla bi mbokk yi lii di jullik mbooloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay xadis yu bari yii ngëneel yi li ci wax yii mu wax ci atte yi yii mu wax ci sax ay xuppe yu ci nekk ci koo xamante ni ñàkk naa teew ca mbooloo ma ki nga xamante ni mbokk yi dafa fonk jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de bokk na ci juróom-ñaar ñi nga xamante ni nee na yudilluhum llahu fi dilli yawma la dilla illa dilla juróom-ñaar ñi nga xamante ni yàlla dina leen dugal ci keppaaram googu ci suufu arsham googu ëllëg ci naaj wu tàng jër bay am ci yawmal qiyaam mu ni ñam fay dugal bokk na ci rajulun qalbuhu maalluqun bil bil masajid mu ni koo xamante ni waajoo xamante ni moom léppam jàkka la saa yu jullee waxtu ma ngay xaaraat waxtu wa jotaat ngir mu dem jooxee ko ca jàkka ja moo xam jàkka ja nekk ca koñam la moo xam ci yoon ba mu nekk di dem jàkka ja fa ne la moo xam ca service am jàkka ja ko jege la ak tey julli mbooloo sunnatun waajiba la fi xaqi kulli muminin lam yamnauhu udrum min xuduriha ak tey teew ci julli mbooloo ma sunna la su war ci képp koo xamante ni ab jullit nga te amuloo benn ngant bu la mën a taxa bu la mën a teree dem teewi ci jàkka ja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ma min thalathatin fi qaryatin munul amul ñett ñoo xamante ne dañoo wàcc ci gox moo xam ci village la moo xam ci quartier la moo xam ci cité la wala badwin laa tuqaamanna fihinna salaatu aljamaa illa stahwaza alayhim alcheytan fa alaykum biljamaa mu ne amul ñett ñu dëkk ci gox waxtu julli jot kenn ku nekk toog fa nga toog jullee fa lu dul seytaane da leen a dominer nga dégg ci ni kon mu ni ñett ñu dëkk ci gox ñett ni dong la wax bu julli jotee na ñaar na kenn dem jiite ñaar ñi ci des kon asamaan nag dëkk boo xamante ni daanaka ñett a dëkk ñëpp wala ñi ci ëpp ci quatre-vingt-dix pour cent yi ay musulman lañ nga gis ñu jàkke yi ci tumuranke gi muy tumuranke ci waxtu yu bari kenn ku ci nekk nekk ca la mu nekk ba waxtu wa wees fekk la ci nekk ci ay ngëneel romb na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni fa innama yaakulu dibb min alganam alqaasiya mu ni misaal boobu ma leen di jox nag ci ñett ñooñu mu ngi mel ni nee na ab gàtt bu beru ci biir jur gi nee na na ko till ba di mënee fekk fa mu nekk domine ko lekk ko dem nee na noonu la seytaane di mënee kenn ku ci nekk am ci yow pouvoir di la dominer ci loo mën a nekk nga ne di nekk nag ci salaatul jamaa ci julli mbooloo yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadis mu ni salaatul jamaa tafdalu salaatul fazzi bi sab'in wa ishrina daraja yow mi xamul ngëneel bi nekk ci julli mbooloo mu ni ki julli moom kese ak ki julli ji ci mbooloo ma ñoom ñaar li ñu rawantee mu ni ka julli ci mbooloo ma rawe na ko ñaar fukki daraja ak juróom ñaar daraja fii marra lay tekki maanaam vingt-sept fois yow nga julli yow kese fële kee julli ca mbooloo ma ki julli ca mbooloo ma rawe na la vingt-sept prières bu dee tisbaar la rawe na la vingt-sept tisbaar bu dee tàkkusaan rawe na la vingt-sept tàkkusaan xool ku jàppee noonu ba at bi jeex wala mu jàppee ku leen ab dundam kooku ñaata at la dund de plus yoo xamante ni julli ci mbooloo moo ko may ci ay lu yàlla gërëm nag ba tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wéy di wax ci ngëneel bi nekk ci salaatul jamaa julli ci mbooloo mu ne wa zalika ida tawadda fa ahsana al wudu mu ne ko jàppee ci këram waaj summa atal masjida mu dox dem ca jàkka ja laa yuridu illa salaa dara taxukaa jóge ca këram lu dul dem julli ci jàkka ja fa lam yaxut mu ni fa lam yaxtu xutwatan illa rafau llahu biha daraja wa xatta biha xutwatan xatta yadxula almasjid mu ni amul benn jéego bu muy yëkkati lu dul yàlla da ko ci yëkkati daraja ci yoon nga muy dem ci yoonu jàkka ja tànk bu mu tegit yàlla faral na ko ay bakkaar ci jéego bu mu def nga gis ne loolu ay ngënal la ci jamono ji nga xamante ni li doomu aadama mën a toggoo ci ay bakkaar ci la muy gis ak la muy dégg ak la muy wax ci lu yoonam nekk lu ne naka te dem ci jàkka ja bokk na ci li lay faral ay bakkaar ba tey yemu ci mbokk yi mu ni wa ida daxala al masjida kaana fi salaati ma kaanat salaatu taxbisu mu ne tànk yaa ngi toog julli ba pare toog ca jàkka ja toog temps boo fa def nee na ñu ngi lay bindal yoolu ku julli kuy julli maanaam bu fekkonte ni da ngaa julli tis tàkkusaan ba pare timis diggante timis ak géey ni mu gàttee te daanaka boobu bu doon ci liggéeyukaay la nga ni wàcc nga nga toog ca jàkka ja xaar gee yool ba nga cay am kenn xamul ni mu toll ñu ngi lay bindal yoolu ku toog di julli ba tey mbokk yi yemu ci ci ay ngëneel li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax mu ni wal malaikatu yusalluuna ala ahadikum ma daama fi majlisihi alladi salla fihi yaquluun nee na malaaka yi nekk ci jàkka ji ñu ngi lay ñaanal yow mi nga xam ne yaa toog ci jàkka ji julli ba pare di wax ni allahuma agfir lahu allahuma arhamhu ma lam tuhdis di wax ne yow yàlla yàlla na nga jéggal sa jaam bi yàlla na nga ko yëram loolu la ñuy sax di la ko ñaanal mbokk yi ba ba sa njàpp di firéeku loolu rek dafa doyoon sëkk sax ci ab jullit muy daw di dem ci julli ci mbooloo ma ngir yool yooyu ci nekk saxaaba yi nag daanañu mandargale ki nga xamante ne du dem ci jàkka ja ñi ko am naa feq la ndax ñoom mënuñu woon imaginer waxtu julli jot nga toog sa kër julli ji woo ku ko def rek liñ la daan considéré comme naafiq waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nag ñaari julli ñooy ñaari julli yi gën a diis ci naafiq qaala rasul sallallahu alayhi wasallam asqalu salaati ala almunafiqin salaatu al-isha'i wa salaatu al-fajr mu ni ñaari waxtu yi moo gën a diis ci naafiq muy julli gee ak julli suba ndax julli suba nee na day fekk nit ki julli gi mi ngi ci ay nelaw yu diis ba pare ci lëndëm nag foofu sax pas-pas moo lay yëkkati nga jug waaj dox dem ci lëndëm ga te jàkka ja julli ji ngir dabu ji yool bi foofu amoo kenn koy seedaloo ne mu ngi may gis ndax xaar ma génn ndax nit ñi gis ma ma maa ngi dem julli ci jàkka ji déedéet foofu naa féex dàqu na ci yow julli gee it day fekk boobu wàcc nga sonn sa yaram yépp bàyyi waaye boobu sax pas-pas volonté moo lay tax a jugaat ni xaar ma dem dabu ji li nga xam te ne mooy yool bi nekk ci julli mbooloon mu ne nag ki nga xamante ne ab naafiq la li tax ñaari yooyu di diis ci moom mooy danaan ah boo demee heure bi kenn du la gis mooy dem jàpp gee moom day fekk lëndëm gi bu dee fajar gi tamit kooku noonu kenn du la gis jàpp moom boo koy jàpp nag mooy jur ci yow ak di jëmbat ci yow li nga xam ne mooy naafiq te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na al munafiquuna fi darkil asfal min an naar li nga xamante ni ñoom ñooy naafiq yi ñooñu ëllëg yàlla subhanahu wa taala mu ngi leen di mbugalee ci xur wa ne ci biir safara yàlla ci yàlla musal aqul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allahumma salli ala alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli di salmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam amul sikki sàkk ci yi ñu wax ni ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle wax ko ci ay ngëneel ci jullik mbooloo dafay doy sëkk nag ci xadis bi nit ki war a mën a xool ndax moom am nay ngànt wala amul ngànt ci dem wuy ci mbooloo bi أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بين واجو خامن دا ام لاغو لاغو gi mën nañ jàpp ni ay bëtam ñoo sëgg mu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ni kooku ibnu ummi maktum la mu ñëw ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam man de sama kër dafa sori te samay bët daa sëgg te yoonu jàkka ji lu ne mën na ma ci daal ndax am naa rux sax ngànt ngir bañ a dem wuy ji ci mbooloo mi yonente bi sallallahu alayhi wasallam defal ko rux sax ba muy dem mu woowaat ko mu ne ko hal tasma'u nidaa ndax di nga dégg nodd bi mu ne ko ah kay dinaa dégg nodd bi qaala alayhi salaatu wasalaam fa ajib kon na nga dem wuy ji mbokk yi xadis bi dafa doy sëkk ci yow ni yàlla defal tawfiq nga jóg fudd xool nooy lépp di fonctionné nga dégg nodd bi ba mu baax nga dal ni ah garaawul waaye yow est ce que am nga ngànt par rapport ak kii nga xamante ni bu doon ab ngànt rek la moom ko yeewee na ko ndax ay bëtam dafa sëgg fa mu dëkk sori loolu mën na koo arrivé ci yoonu jàkka ji waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxalu ko benn ngànt xadis bii nag ñu bëri ci la ñuy tegtaloo ci wax ni waajib la dafa war ci kenn ku nekk muy dem ci julli mbooloom ci jàkka ji waaye boo demee ci mazhab Malik moom sunna mu akkade la ko la ko la ko la ko la ko teg comme àtte ñu bëri nag ci la ñuy jox ab ngànt ci léeg-léeg di xaw a mel ni seytaan dala fay not ngay toog sa kër bañ a dem ndax dañu wax ni dalil bi ñu teg mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni jullik mbooloo moo gën ci ay daraja lu tolloog ñaar fukk ak juróom ñaari daraja ñu ni comme dafa wax moo gën kon bee dara nekku ci baax na waaye sunna mu akkada la waaye yow mi dégg lii ñu wax ni ci ay ngëneel la ca nekk ak tëkku bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon benn bis mu ni su ma bañoon a wuute jullik mbooloo mii dinaa batale kenn mu ñëw taxaw fii sama place ma dem ci ñi nga xamante ni ñoo nekk seen kër mën a julli si julli suñu ma taal seen kër yi seen kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam buy wax loolu est-ce que dafa nekk yonent boo xamante ni dafay fitnaal dafa soxor laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufur rahim yoon la ñu yéene ngir ñu dabaatal ko ca jàkka ja ñuy dem ndax fa ñu jëm mbokk yi di yowmal qiyaamati la fa waay di rëccu mooy néewi tuyaaba ak bëri bàkkaar te yoon a ngi nii boo xamante ne alayhi salatu wasalam nee na bokk na ci li lay fulal say tuyaaba bala ngay dem waaye di la faral say bàkkaar bala ngay dem fee di yowmal qiyaamati ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله